ci ni mu ko baaxoo di defe mooy fépp fu mu toog moom ak ku mel ne moom ñu xam ko mooy la ca gën waaye buñ ko xamutit nañu xam ne jëmmi sëriñ Touba lañ fa toogal kon ci kàddu ki fi nekkal Serigne tubaa ci la ñuy yëkkati seen kàddu kon nee na mi ngi leen di yëkkati kàddoom ci sëriñ tubaa Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne tubaa ci kaw suuf. waaye di wayjuram di xaritam mu ngi ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te dolli ak wéram di leen nuyu ci turu njabootuk maam Cheikh Anta gépp waaye di leen nuyu ci turu yoonu murit wépp di leen nuyu nag ci turu boppam di jaare leen nuyoo boobu ci sëriñ Jibril mi nga xam ne jëmmam du ko xoolee lu weesu jëmmi sëriñ Modou Rokhaya te bu ko xoolee jëmmi sëñ Modou Rokhaya jëmmi sëñ Modou Mamoun rek la koy xoolee te bu ko xoolee jëmmi sëñ Modou Mamoun jëmmi maam Cheikh Anta rek la koy xoolee moom day sëriñ bi dafa wax ne neexoon bokk yi xam mooy kan ndax li ne ci dënn bi ne ci xol bi làmmiñ wi mënu ko tudd waaye aw turam rek firi na jëfam kenn nattabliwut na Seydina Jibril alayhi salaam moo doon ndawul yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi moo doon ndawul yàlla ci jaam yi kon lépp lu masaa di génne ci yàlla moo ñu digaloon ne bu ngeen toppee yàlla toppi leen bu ngeen bëggee topp yàlla topp leen ci ginnaaw Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ Jibril li sëriñ Abdou Lahad waxoon ne képp koo xam ne mbooloo topp na ci sa ginnaaw ngay wax ñu di la déglu na nga yëg ne boo ko xamee ak boo ko xamul mursal nga daal di wax na nabiyul morsal nag moo fiy jóge waaye mursal du fi jóg ba àddunay tukki nee na yow mi nekk mursal nag yàllante woon nga xam ko bay wax nit ñi lu leen di jariñ ci alaaxira di leen jariñ ci àdduna waaye sëriñ Jibril mii kenn nattab li wut ne mursal la ci ñi ko yàlla booleel bépp kàddu bu jóg ci moom kàddu la boo xam ne bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëwoon moom lay wax te moom la waxit ne na ngeen ko jottali yonente bi loolu la wax ay am na leen jottali leen sama mission donte benn araf la it ngeen mën koy jottali moom it mooy li sëñ Touba di jottali ba taxoon mu def ay seex ñu fay wane lu mel nii sëñ Jibril loole moo tax sëriñ seex ba mu fi ñëwee ñaari at ba ko ñetteel mu ne sama borom jaarale na ci sëriñ Touba mu jaarale ci sëriñ Modou Rokhaya mu jaar sama loxo kaala gi nga xam ne mooy kaala ak seex ma boole koog moom ba kuy yugati di wut yàlla soo yemee ci moom boo fa jaaree ba am ngërëm. am nga ngërëmul sëñ Modou Rokhaya am ngërëmul sëñ Modou Mamoun am lal maam Cheikh Anta am lal sëriñ Touba nee nag lii nga def cant gi ci jëkk mooy yow de jébbale nga sa bopp jébbale nga sa njaboot jébbale nga sa alal jébbale nga sa man-man jébbale nga sa bakkan jébbale sa sa faatu ba joxe lépp ba dara deseetoo ko nga fab alxuraan yi yàlla ji nga xam ne nag sëriñ Touba nee na lépp lu nit di faggu di ko ci mooy la ca gën nee na man kenn du ma donn ci alal baa ci wërsëg baa ci or luñ may donn ci alxuraanu jii lañ may donn waxit ne alxuraan mooy sama ndàmm mooy sama kopparfor mooy sama docteur mooy sama xarit mooy sama soppe mooy sama àndandoo lu ma am ci téere bii laa ko amee sëriñ bi moo wax ne jóge na ci yàlla may dëgg jaar ci jibril mi nga xam ne moo yor dëgg wàcc si ci Moustapha mi nga xam ne ci moom la dëgg jëm si téere bii de na ngeen xam ne fu ma mën a jëm moom sama àndandoo nee na kon yow li nga joxe li ci gën a rëy mooy alquranul karim li nga jox lépp alquran rek lañ doon tegtale bi nga fabee kaam bi jox ko ko nag nee na na ko cheikhul xadim daan def nga xam ne luñ ko masaa jox tegal foofu la lay wax waaye day wàcc toog ci suuf yi fab nangoo ko ñaari loxoom taf ko ci ab dënam sëriñ bi nee na na nga yëg ne sëriñ Touba nga jox kaamil bii te li nga def lu jafe la nit ñi toll ci seen digg doole man alxuraan lool ba nga xamante ni bii wet gu ne mën nañ ko ko jaarale suñ doon bind kaamil te ànd ak bët yu neex ak xel mu neex ak nopp yu neex mënuñoo bind kaamil lu yees juróom-benn weer wala juróom-ñaari weer kon mag mu toll fii nga toll ci ay at sa sab gis wàññeeku sag dégg wàññeeku nga mën a bind ab kaamil ci ñaari weer nee na loolu day xam nga ne jagleeg yàlla la rek goo xamante ne bi ca ak seet gum seet ba sa diggante ak alxuraan di dëgg mu faye la loolu waaye boo doon wër àdduna dootoo ci gis beneen nawle bu mel ne sa nawle bii waaye loolu nag sëriñ bi nee na daf koy delloowaat ci sëñ tubaa ndax sëñ tubaa moo wax ne yàlla daf maa donn loo alxuraan moom loo ma alxuraan may ma alxuraan sarax ma alxuraan jaay ma alxuraan wax ne nu ñuy moomee alquran rek moome naa ko ni ba wax ne tam lii kan ya doom moomeel gu sax dakk la ma yàlla moom loo alquran loolu moo mas a tax mu mën a bindulu ab kaamil boo xamante ni bii ci benn bis lañ koy bind bindub kaamil ci biñ weeru koor teroo bañ wari mu bindub kaamil bind loo juróom-ñaari nit kaamil bind loo ñu bokk ndey ak baay kaamil bind loo ñu kenn xamut sa moroom kenn ku ne bindub kaamil moo ko may nag ci darajey alquran mu mën a fab mag mu am juróom-ñett fukki jëm juróom-ñeent fukki mu bindloo koob kaamil ci ñaari weer sëriñ bi nee na loolu boo tàmbalee ci Moustapha ba ci jamonoy ci yi ma alxuraan wàccoon ci moom ba bisub tey bii doo gis kenn koo xam ne am nga mag mu toll at yi mu toll mën a bind kaamilu alxuraan sëriñ Touba rek la ko yàlla defal nee na lii moom jëfi sëriñ Touba rekk dëgg dëgg la nee na loolu moom amu ci lu muy nattable moom ndax sëriñ bi kat ba muy dem ci géej gi bañ ko ne looy yóbbaale kenn ku nekk taxaw ne nee na mbokk yi ñëw nañ taxaw yàlla ji jinne yi ñëw nañ taxaw malaayka yi ñëw nañ taxaw mursaloon yëpp maase nañ ñëw taxaw sahabatu rasul yëpp ñëw nañ taxaw mbooleem nit yàlla yi kenn ku ne ñëw nga taxaw ne sëñ tubaa loo soxla ma ànd ak yow yóbbaale ko sëñ tubaa na leen lu ngeen àndaale lu dut ndigalul yàlla mën ngeen a dellu te bàyyi maag yàlla yàlla na ko yow kon tànnal sab àndandoo dafa wax ne jox ma téere bi yàlla bi rafiqi téere bi yàlla ba rek moo doon sama àndandoo wal Moustapha nabi ak Moustapha moom wàccoon ci moom kon nag téere boobee sëriñ bi nee na taraanga ju toll nii jii nga def ci kaamil bi nee na wóor na ko ne sëñ tubaa gis na ko let nat tëb li wut na it sëñ tubaa la ko doon defloo wóor na ko ne it sëñ tubaa bég na ci kon nag loolu mën naa faj aajoy waa Refane gépp kon nee na xolam sedd na mi ngi lay sant di sant sa rakk yi topp sa ginnaaw te déggal la lool jàppewuñ la mag lu def la sëriñ duñ xool ci yow dara lu weesu wet bu ne bu taxas naree nekk sa kaw ñu tegg ko bu la naree doxe ginnaaw ñu toppal ko sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla ànd boobu yàlla na yàgg waaye yàlla nañ làq sa ngërëm ndax buñ làqee sa ngërëm nga làq ngërëmul sëñ Tuubaa rek ñoom ñëpp am nañ ngërëm nee na di sant njaboot gi topp ci seen ginnaaw li ko tàmbalee ci baaba kër mii ak ñu topp ci ginnaawam ñëpp di ay doom baay ay jarbaat wala ay xarit wala ay soppe nee na ñoom ñëpp mi ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla dolli seen kattan bañ mën a jëf ci kanam mag ñi lu sedd seenu xol lool te mu yàgg lool sëriñ bi nee na mi ngi sant jigéen ñi ndax wax mbay wax na ko seenub taxawaay di sant tuut tànk yi ci njàngum xasida mu sell mi ak àndandoo gi ñu àndandoo boole seen bopp lépp loo xamante ne bii lu ñu war a def la ñoom ñëpp ñu tegandoo ci seen loxo nee na ndigal lam leen joxoon gis na ne ñu ngi koy jëfandikoo kon nag yàlla na yàlla féete leen fépp nee na mi ngi sant dëkkandoo yi itam fu nit mën a bàyyi ko ci ñëw ci bis bii sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal yàlla la Serigne Touba defaloon maam Cheikh te nee na seex daa dajeeg tawféex bi muy juddu da koo ganewaale àdduna lu nit di sonn da koy fekk ci kanamam moom du jóguti dara wa maa tawfiiqi illaa billaah nee na tawféexi maam Cheikh jooju yal na ko yàlla defal tundu fan gépp waaye defal ko ku tàbbi ci kër gi nee na xolam sedd na xelam dal na bis bii day daa dokk ci bis yi nga xam ne da ko yemaleeg bisub sëñ Modou Rokhaya ba waaye fi mu koy fekk nekk nay xat-xat waaye day wax ne bisub sëñ jib mook bopp sëñ Modou Rokhaya laa yemale duma ma ca yebal kenn maa cay demal sama bopp kon nag nee na xolam sedd na mi ngi ñaan yàlla ñu fekkaat la fi déwén nga jiitewaat njaboot gi te lépp loo xamante ne bi yéene nga ko njaboot gi yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Cheikhul Khadim barkeb sëriñ Modou Rokhaya nee na téere bi itam sëriñ bi ne dafa am lum ciy seere rek ndax la sëriñ ba waxoon wax ko ci téere bii wax ne min al xaqi jaa al xaqu lil xaqi fi sax bi bi xaqin mubiinin laa yuaanihi min sax bi sëriñ bi nee na téere bi dikk na jóge ci sunu borom miy dëgg wàcc ci yonent bi miy dëgg dëgg indi yoonu dëgg indi yoonu dëgg yoonu nañ muy kitaabun mubiinun muy kitaabun mubiinun bi xaqin mubiinin bi mu ñëwee it moom téere bii fekk bi fekk na yonant bi toog ci digg saxaaba yi toog ci digg saxaaba yi téere boobu nag boobu nag ku fekke ba muy wàcc ku nga dégg ci ab baat wala nga gis ko walla nga gis ko dootoo desee dara lu lay jafeel kon nag téere bii jóge na ci sun boroom mu la ko ci loxol sëñ Jibril Sung mu wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala ñi ko fi nekkal sahaaba yi nga doon waxit muy ñim fi fekk di yow ak sarak yi ak njaboot gi ak ñi mu àndal mooy saxaaba yi ngay wax rek kon day mel ni ku ko fekkee day mel ne ku fekkee lii dootoo dajeeti ci mukk sa àdduna lu jafe dara jaale ko ca la sëñ bee doon wax door cee jàll kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi sëriñ bi nee na mi ngi ñaan. la sëriñ bi ñaanoon ci téere ba. téere ba nee na. ci la ñuy ci téere bii kat ci la ñuy muccee. adduna. adduna. ak alaaxira. ci téere bi ci téere bi ci la ñu yaakaare. yërmande yàlla. kon ku fekkee téere bi sëñ Jib Sung bii. yàlla nga mucc ci sa waraw ëllëg. yàlla nga am yërmande yi suñ borom. ak defarug àdduna ak goog alaaxira nee na tafaaraqana al ahdaau wa shakku ci téereb sëñ sëñ bii wa unil naal xisba baax dan tifal jat bi kon bekkoor mel na ne duutu fi am moom ci barkeb kon nag bu ñu toppee firi lépp ndax kat sëriñ bi nee na bi nga addee téere bi la sëriñ Tuubaa wax ca minal àqi rek ci la am xelam daal di dem loola rek moo daal di taxaw ci kanamam yonent bi nag bi naa Jibril di wàcce ci moom alxuraan aaya ju ñëw yonent bi dana xam lu yàgg yàgg yàgg waaye nun tey jii ku ñu waxoon ne mag mu agsi fii saxaaba ya daa tax may wax ak yonent ba ak ña fekke woon loola ku leen wax ne am na mag mu toll fii ci at am gisam toll fii mu bind kaamilu alxuraan bu leer ci ñaari weer dana jaaxal ñooña lool de ndax ñi àndoon ak yonent bi ca jamono yonent bi mënuñu woon bind ab kaamil daawuñu ko bind ci xàncum ron mi rek ak koko yi ci lañ daan bindee alxuraan ñi ci des di wattu liñ mën a wattu waaye yaxal ko nii nag ci këyit buñ ko móolee àdduna bépp jariñu ci ay sëtam ak i sëtaatam di ci jariñu lépp sunu borom di ko bége di la ci bégal nee na loolu tawfeex la mennum sëñ tubaa rekk ko mën a maye ndax gëm sëñ tubaa moo mën a def loolu waaye mag ñi ku masaa binduloo ab kaamil da nga leen fay lu baree baree baree bari danga leen fay lu bari walla nga liggéeyeen leen lu bari waaye lii ngëm rek moo ko lal pas-pas rek moo ko lal kon pas-pas rek mooy li am solo li nga xam ne moom la sañ mbay àggale ci discours bi itam loolu sëñ jiba ko bind waaye loolu lu sunu borom baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jagleel ko ko waaye yonent bu ko jiitu mosu koo am hal adullukum ala tijaaratin ndax yéen kat duma leen tegtal yaxant boo xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak yonent bi yaxantu boo xam ne dangeen ci am njégalug yàlla dangeen ci am këri àjjana loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ako xeetam rekk la ko sunu boroom jagleel kon yéen waa reefon yéen waa barab bii kullu xisbin bi maa ladayhim farihun sunu borom nee na mbooloo mu ne kuréel bu ne lañu am moom lañuy ñuy waaye kat ci lislaam ak ci yoonu sëñ Tuubaa wi mënee su cee gis ku kawe daraja ak baatin suñ jib sung mii wala nga dégg ko fenn sax ku mën a bind kaamil ñaari weer mu set wecc kooka lu waay di wuti mën nga koo bañ a teggi ginnaaw nag sunu borom moo wax ne kuréel bu ne ak mbooloo mu ne bi maa la day him farixoon la am rekk ci lañuy tiitaroo moom la ñuy bégee rikkuwaay bi fi kenn weer sañ jib di wuti koy jébbulu boo ko defee itam la sëñ tubaa waxoon rek lay dal sëriñ tubaa am na ku masa wax ne ko mënuma ko jébbulu rek ma yor ay ndab di la wutal añ sëriñ bi dafa wax ne kenn ku nekk kama la booleel muy sa jëwriñ moom lay jox sab añ bu ëllëgee mënuma ëllëg kenn ku ne ma lay yëtub añ ku fi bàyyi sa jëwriñ dem faneen ci añub jàmbur rek ngay xaaraan waaye seen añ yi jox naa ko ñama leen booleel bu yàgg kon nag yéen ñiñ booleeg sëñ jib suñ sëriñ bi nee na seenub añ a ngi ci loxol sëñ jib mii ku ko fi rombit da ngay xaaraane waaye sab añ ci loxoom la ne wa tahdiisu yaquudu lil يقود القرآن والتوحيد وعن سبيل الله لا أعيد يقود القرآن والتوحيد وعن سبيل الله لا أعيد dama bëgg man kat lii ma gis fii musuma koo gis ci àdduna te xam naa ne góomali dina amati ci àdduna loolu dama bëgg ñu xam ko dama bëgg ñu ñun ñi fi nekk kaamil bii kenn musu koo gis mag mu toll nii bindu kaamil alxuraan te doo amaat ci daaru duniya lii kat man jaaxal na war war na sëñ Tuubaa damaa bëgg képp ku fi nekk na nga jaayante loo am ngi indi ko kaamil bii sëriñ bi jébbal sëriñ bii ñu booleel ko ci àddiya jox ko ko barkeelu ci ndax suñu borom dimbali ñu gën a doon murid saadix gën bëgg sëriñ Tuubaa ku fi nekk na nga lamb ju bari ñu boole ko ci yëbbal ndax lii mun musuma ko gis te du amaat ci àdduna kat loolu nañ ko xam oh, waaw jox nañ ko ku ko mat a jox jàmbaar Sëriñ Tuubaa oh, waaw na ko ñëpp def ngir jëm Sëriñ Tuubaa